ce samedi 30 mai le ministère la Santé et de l'Action sociale des examens virologiques suivants. Sur 1370 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un Les cas positifs sont répartis comme suit. cas contacts suivis par nos services, cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Parcelles Assainies, 2 cas communautaires, Cambérène, cas communautaires, Colobane, cas communautaire, Liberté 3, un cas communautaire Guédiawaye un cas communautaire Hann Bel-Air un cas communautaire Nord Foire un cas communautaire dans la région de Kaffrine un cas communautaire et Touba un cas communautaire 23 patients sont déclarés guéris ce

Force est donc de constater que de Dakar constitue l'épicentre de l'épidémie au Sénégal. En de Covid-19 sont issus de la région de Dakar. À la région de Dakar totalise 2525 cas sur les 3429 dépistés dans notre pays, soit un taux de 73,6%. À ce niveau, il faut noter que la transmission locale est clairement établie et se traduit par des cas issus de la transmission communautaire, mais aussi des décès communautaires. Dès lors, l'endiguement de l'épidémie doit mobiliser toutes nos énergies. Cela passe par un renforcement de nos stratégies à l'échelle locale et particulièrement dans la région de Dakar. Ce renforcement stratégique devient un impératif urgent. C'est pourquoi j'ai demandé au Comité national de gestion des épidémies, en rapport avec le Comité régional de gestion des épidémies de Dakar, de se réunir, toute affaire cessante, pour nous proposer une stratégie spécifique de renforcement de la démarche de lutte dans la région de Dakar. Mesdames, Messieurs, pour vaincre le Covid-19 au Sénégal, nous devons nous mobiliser au sein de nos communautés pour vaincre le Covid-19. Mais je lance un appel particulier et insistant à toutes les dynamiques communautaires de la région de Dakar pour se lever comme un seul homme pour stopper la covid parce que si on perd la main à Dakar, la lutte risque d'être perdue au niveau du pays. Le CNGE et le CRGE doivent nous proposer dès mardi la démarche à accentuer pour notre lutte dans la région de Dakar je vous remercie. ma jàngal leen situation bi ñu am ci bésu tey bi tey samedi fan ci weeru mai deux mille vingt ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu doon def ci junne. ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki test yu ñu def tey téeméer ak juróom-benn ñoo ci positif quatre-vingt-quatorze bonnes juróom-ñeent fukk ak ñeent cas ñoo nekk ay cas contact fukk ak ñaar ñoo ci nekk ay cas communautaire ci cas communautaire yooyu. ñaar yi Parcelles Assainies lañ nekk ñaar Cambérène benn Colobane benn Liberté 3 benn Guédiawaye benn Hann bel benn Nord Foire benn Sicap Amitié benn Koungheul région Kaffrine Kaffrine benn Touba ñu yëgal leen ne ñaar fukki patient ak ñett wér nañ ci bésu tey bi li ñuy wax cas grave moo ñu nekk réanimation mën nañ jàpp na fukk ak ñeent ñoo fa nekk tey ñeneen ñiy faj ñu ngi yëg tan bu baax ci bésu tey ba ba mu dooree ak léegi mën nañ jàpp ne ñetti junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom moom lañu ñu si ay kaayu yu positif si lim boobu junne ak juróom ñaari téeméer ak euh, juróom benn fukk ak benn ñoo si wér ñeent fukk ak ñaar génn ci àdduna junne ak juróom ñaar téeméer ak fanweer ak benn ñoom la ñuy faj tey si hôpitaux bu ngeen seetloo bu baax situation tey bi téeméer ak juróom benn cas yi ñu am tey juróom ñett fukk yi ak ñeenti ñu ngi fii ci région de Dakar ci fukk ak ñaari cas communautaire yi ñu am fukk yi ñu ngi ci région de Dakar lim boobu nag xamante ne li ëpp si li ñu déclaré Dakar lañ nekk bu ngeen ko seetloo semaine yi passé yëpp loolu lañu am loolu day waree ne nag feebar bi fii ci dakaar la gën a nekk ñeent yoo jël ñett yi ci Dakar la nekk bon dëkk ñu war a taxaw ci ñetti junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent kaa yi xamante ne jël nañ ko le vingt neuf junni yi ak juróomi téeméer ak ñaar fukk juróom yi fii si Ndakaar lañ nekk boo ko xaymee junne bu nekk daal ñaar fukk yu nekk mën nañu wax ne juróom ñaar fukk yi ak ñett yi Dakar la nekk bon dëkk mbir mi mooy que ne fii si Ndakaaru dañu war a am taxawaay boo xamante ne taxawaay bu wér la parce que jàngoro bi law na fi bu baax a baax te bu ñu taxawul dana faagagal ñu bari fii ci Dakar moo tax ma wax comité national de gestion des épidémies ñu xamante ne ci réew mi yëpp ñoom ñoo ñuy xelal ci mbir mi joxe orientation ñu lëkkaloo ak comité régional bi xamante ne ñoom ñoo yor mbiru Dakar pour euh, nu mu gën a gaawee ñu taxaw xool lan lañu ñu war a mën a taxawaay taxawaay bu gees bu gën a tar. pour arrêter feebar bi fii ci Dakar parce que situation Dakar nekk na situation bu particulière may wax ne nag bu ñu lënkaloo ñun ñëpp boole suñu doole danañu gagner effectivement Covid 19 bi mais bu ñu caaxaanee Dakar yaakaar naa ne feebar bi mën a taxawee ci réew mi noo xamante ne dana faagagal lu bëree bëree bëri may wax ne nañu lënkaloo. pour gagner Covid 19 mais fii su ndakaaru bu ñu caaxaan parce que mi ngi law law boo xamante ne mën na fi faagagal ñu bëri asalaamaaleykum wa rahmatullah